voilà mbokki internet yi ba tey rek gis ngeen ci université bi oho fii day tiita góor gis ngeen da actuellement ni ni affaire yi mel fii ci ci buntu université bi Ablaye xoolal affaire yaa ngi affaire noonu bii fu ñu gaa yow eh, ay dooy xoole ba dóor ma ci biir nii rey nga ma rek yow bu ma wàccoo doo yàq sama koor gi kuu bi ma dóor nii may dox doo xool ndeysaan jigi doodu seede yàlla raka ñëw koy ci dina koy dégg noonu son boobu mooy mbell bi mbell lañ ko tuddee waaw lay fee dafay xaw a cool tuuti ndax rek boo génnee di nga gis eh, jafe-jafe yi nga xam da nga koy am pour nooy métti na métti na eh, actuellement ni ñi ngi ñi ngi ñi ngi dundoo li nga xamante ne fii ci buntu université bu Cheikh Anta Diop rek ay affaires yoo xamante ne doo sax comprendre wala noo ko mën a gis nga fële nga xam ne fa la ñu jóge woon euh, ci ci ginnaaw saison PRP euh, foofu de gazé yi nga xamante ne gazé nañ ñu ko fa ñu daw wutaliwaat fii université Cheikh Anta Diop daara ju kawe ji waaye li ñu fi amaat tamit euh, doo sax comprendre Mamadou Sylla maa ngi lay jaajëfal yow tamit bu baax baax di la kontaanee bu baax baax mais rek. comme ni ngeen koy gisee ni actuellement wax dëgg neex fa yàlla jàppante yi fii ci buntu université bi dafa xaw a doy waar tuuti euh, rek moo tax ñu xaw a taxaw côté bi tuuti euh, waaye ku ne xam na man ak laay fi xolu affaire yi nekk dañ leen fay demal euh, dañuy taxaw nii tuuti am lu ñu régler rek bu nu ko defee donc jug nag dugg fi fi fi fi soos bi fi soos bi nekk fi yëf yi méttee pour ngeen di gis li nga xamante ne moom mooy xew foofu noonu ndeysaan nekk na loo xamante ne nag lu lu lu doy waar la dinañu nag jóg dugg fii nga xamante ne fa yëf yi gën a tare parce que xolo poussière bu ñu noo ñuul boobu ngeen di gis ci ci biir université bi uni euh, xale yi ñoom ñooy taal li nga xamante ne moo di poubelle mbalit yi nekk foofu ci ci ci biir université bi waaw waaw Ablaye euh, nee naa la ay du yam ci boppi borom mhm. lii nga xam ne yeewi askan wi mbëbën na ko wala lii nga xam ne yeewi askan wi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy wut pour lép li nga xam ne daanaka mooy marche pacifique man jàpp naa ne bu ñu leen bàyyi woon ñu marche pacifique allez dina nekk loo xam ne dina am important lool euh, pour ñu lépp mën a jàll jaar ci yoon comprendre nga benn affaire parce que lii nga xam ne nit ñi war ba heure ba ji nii ngay naan ay lacrymogène Ali nit ñi nit ñi ñëpp seen liggéey taxaw na ndax lépp Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang wala lépp ngir nga dañuy ndawtal Ali wax naa la ñii buñ ñu yóbbee lii am nu mën a seetaan Ablaye noonu nga ñii ñoo ñu noonu encore une message dëgg la mën na neex ngeen di kontaan et tout wala tey ñu koy dund ak naxar mais jàpp leen ne bu leen fàtte ne lii ndaw ñi di dund wala li nga xam ne xew na ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñun rafetlu wuñ ko xam lu moo tax mu loolu ñi ci war a wax nañ ci war a wax nañ surtout loolu. ñi ci a wax nañ ci wax. Mhm. c'est important que ñu wax parce que tey jii nii ñu bëri seen liggéey taxaw na ku ci nekk yaa ngi di xëy doom utali sa papa ak sa yaay wala tey jii yaa ngi jëm ut loo mën a yóbbu sa kër mais àll réew mi fu mu nekk nii xool ne xew na fi te jeexagul nee naa la suba Ousmane Sonko daa war a wuyu ji au tribunal est-ce que Ousmane Sonko dina dem gaañu nañ ci àll xew xool subaak léegi li jot a xew mhm. manifestation fépp la am mais est mi ngi am ci yeneen réew yi Aliou li métti na lu toll ni bésum weeru koor weeru koor war nekk yoo xam ne dañ ciy jaamu suñu borom Aliou réew di demee ni France France sax gis nañ leen actuellement ñi ngi ñi ngi dañu doonu xeex waaye ñoom xeex bu civilisé lañ koy def mais mais ñun fii euh, presse bi pour nga amal sa liggéey xonq nopp yi la ñuy may ñoom ñu dem jege ji fële euh, ñun nag gëleem tukkali nu nu nu des ginnaaw mel na ni Euh, takk der dañu xaw a sax am complexe nit ko nit nit ko euh, weex ndax ñoom à chaque fois ñoom dinañ leen may ñoom ñu jege waaye ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk fii duñu du euh, boo leen jege woon dootoo ko defati tamadu la waaye du ngeen ñu teree amal sunu liggéey di ngeen bruit coup de feu yooyu ngeen xam yéen a ngi koy dégg Euh, fii la ci biir université bu Cheikh Anta Diop étudiants yi nag ñoom ñooy jàmmaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di way takk der yi di di sànnante ak ñoom ay xeer ñii di leen sànni ay grenade lacrymogène yoo xamee ni doy na waar jamono ji yéen a ngi dégg kuy ba léegi arrêté gul te ci diggu weeru koor gi ñu nekk ak waxtu wi jot comme euh, biir université Cheikh Anta Diop bu Dakar instant yi ñuul na ko ko ñuul na ko ko kenn gisatul ndax saxaar si nga xamante ni moom mooy jug ci kaw université bi Ablaye yow xam na téléphone bi moom moo xaw a euh, am kii rek euh, naaj bi dafa tàng lool fii nga xamante ni nekkee nañ fi mais ne vous surtout pas lépp loo xamante ni am na fi rek lu ñu leen war a wan dinañ leen ko wan ngeen gis ko yéen internetu Feeling Dakar dinañ leen duggal fi nga xamante ne foofu lay Euh, ci ak professionnalisme boo xamante ne waay yow waay raam lorati nañu waay yi waaw ah, forasa micro waay ah, yi o soor waay daan ñoom doon wa ni ñi ah, mu xaj lañu bokk pour ñu mën leen a euh, ràññee bañ leen a jaawale ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mbooloo mi actuellement nag fii ci université Cheikh Anta Diop ay jàmmarloo yu métti métti mi ngi fii am dox ci diggante étudiants yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di way takk der yi ku ne xam na nag diggante étudiants yi ak way takk der yi euh, ngeen coup de feu yooyu noonu ah, sunu teel yaa ngi noonu man yilaay laay bañ a dégg. Ali teel commencé dina Ali. a dégg gis nga gis nga kii fi mu taxawee fi mu taxawee dóor ko Ablaye. gis nga kii fi mu taxawee dóor ko boobu serate boobu serate euh, doy doy na waar doy na waar euh, gis nga euh, ñi nga xamante ne mooy oto bi ak ñi nga xam ñoom ñoo di tàkk der yi ñi ngi replier waat di demaate pour bourse waat beneen porte bële nga xamante ne actuellement fa la fa la jàmmaarloo yi gën a gën a gën a métti gis nga presse bi presse international bi ngi leen fii gis jamono gis gi xeer yi ñooy génn noonu xam nga xale yi kon ñu ngi ci combat bi donte weeru koor la waaye yëguñu sax da ngay posé wu la question naan ndax ñi woor nañu um wooruñu gis nga euh, xet gaa ngi ñëw ci cuuraay awo baa ngi noonu euh, comme ni ma ko ñëwoo bi xeeñ na xeeñ na xeeñ na xeeñ na commencé na commencé na xet gaa ngoog gaa yaa ngi dem yaa gaa yaa ngi dem mais xëy li ma jaaxal xeer yaa ngay ñëw ci biir Ali gaa yaa ngi dem mais xeer yaa ngi gën a ñëw Ali dëgg nga dóor na un autre Ali dóorati na dañuy rokkos dóor Ali ay waay doomi nijaay doomi bàjjeen yoo xam ne jàmmarloo yàgg na seen digg xoolal kii la muy dóor xamul sax fu mu moom na dóor mu dem rek barke yonent bi réew mi hop dóorati na gis nga ni dóor xet gu bon gi mu àndal goo xame ni euh, foo ko natt rek pour nooyi ko saf yoo lii baay waay ji xet waay man xet gi dama xamul kañ lay jog ci biir réew mi ta tt aram tara kay fa nekk noonu loo xamee ni jamono ji mi ngi meti si ñëpp xonk nopp yi da ngeen di jaay sob rek mbokk yi da ngeen di jaay sob tubaab yi jéggalu bu baax ko yàqu ku sa biir daw da ngaa waane daw léegi ci ci ci ci li nga moom